bu ñu waxee nag kii di Kader euh, Dia moom mi nekk euh, chroniqueur fële ca Sen TV ci émission bi nga xam ne rek euh, mi nga wuyoo ci les grandes gueules moom nag foofu lépp loo xam ne rek critique la koy def ci li nga xam ne rek moom mooy nguur gu bees bi lee nguuru kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay at Ousmane Sonko mënuñu leen wax nag jamono ji lan mooy motifu convocation bi waaye nag dinañ leen gën a toppal information bi ngir ngeen daal di jot xibaar yu leex te wóor jàngeen jëf